dëgg xaadim ñu ngi lay nuyu bu baax déedéet xaala ko jàpp mu delloo mikrobi te fi mu ko jàppee baax na boobu moom dagg leen ko dugal ko ci whatsapp yi maa ko garanti dagg leen ko dugal ko ci whatsapp yi maa ko garanti fa tabarakallahu ndax sëriñ Babacar si radiyallahu anhu moo waxoon ne bu leen xuloo waaye na ngeen jàng tontu sëriñ Cheikh ko wax sëriñ Babacar si nee bu leen xuloo waaye na ngeen jàng tontu mu ne keroog xalifa bi dafa ni na ñuy tontu waaye ñun ni ñuy tontoo bu ñu toññar bi ñu yem ci kiy wax rek waaye buñ déranger seeni kilifa moom la Haj Malick def waaw nii laa ko bëggee nag tontu yii laa bëgg ndax maam borom Touba li muy am am na ko ba pare nit mën na yàqoo ci moom waaye kenn mënu koo yàqal sëñ Touba kenn mënu ko yàqal nit mën na yàqoo ci sëñ Touba waaye kenn mënta yàqal sëñ tuubaa ku yàlla mën a bind ku yàlla bind ku mën a yàqal sëñ Touba amul dinaa ci joxe benn exemple maam As Kamara ca Ndar ñu bari xam nañ ko Cerno Yaxya li moo ma nettali lii may wax mu ne bi sëñ Touba di door a jóg di gëstu yàlla ak li aju ci yàlla ak yenn turu yàlla yi dañ ko booleek maam as kamara mu ne bi mu ñëwee ndar waxtaan ak maam as maam as téye ko fa mu ne sëñ Touba nga ko amoon fulla la du def ci kër lu weesu ñetti fan buy toppatoo dara boo ko ko joxut wéy na seeti ko feneen bi mu ñëwee maam as kamara tëju ñetti fan génnut Cerno Yaxya ne maam sëñ Tuubaa ne bëkk néeg bu bu génnee nga ne ko dem naa te loolu neex na dégg Alaaji Abdou Aziz Al Amin nee na sëñ Seydi mosul wax kenn kaay gunge ma wala suba laay dem barab sàngam day xëy rek nga gis mu takk bagage yi jubal ñi koy topp topp ko buñ ko toppee ñi war a dem lay wax kaay ñi warta dem mu ne leen yéen dem leen xaar ma barab sàngam mu ne sëñ Touba ne ko bëkk néeg bi neel maam as bu génnee ne ko dem na booba mu nga jëm gànnaar ca Cheikh na Cheikh Saad bu maam as ubbi nee na sëñ ñu ne ko dem na mu ne i moom yeewewu ma ko muy dem maam as kamara boobu ci am na yaxyaa li nee na am na martaba boo xam ni bu la meree bu bankoo ci naaj wi nga faatu cinq minutes bu ko bankoo ci naaj wi rek nga faatu nee na bu bàyyi ba yor yor bi tàng rek mu génn banku mu ne yonent bi feeñ ko yàq zatan ne ko ki ngay banku kii bokk ci maa yore ay mayam te sëñ Tuubaa la noonu mu ne ko ñi ngay banku ñuy dem kii bokk ci Cheikh Ahmad Bamba mii bokk ci ndax maa yor ay mayam nga xam ak ya ca aju yëpp wax na ma ko am na yoo xam ne bu ko waxoon boo ëllëgee yet fekk ma fii ma toog ci ci digganteem ak maam as kamar te maam as lam xam la def rek waaye gis nga mayu sëñ Tuuba ba mu demee ca seex na seex saat bu nag waxtaan ak moom jigéenam bu ñuy wax suwaadu sëñ saaf sëñ seexandooram la seex na seex saat bu seex na lum xam moom ndaw si xam na ko ilaa aaxiri foofu laa ci yem yàlla def kon ñu jël kàddu gi jox ko Oustaz Abdoul Aziz wallahi fam jaar ak Cheikh na Cheikh Saad bu fam jaar ak Suwaadu lépp Cerno Yaxya li nettali na ma ko te sëñ Tuubaa moo ko ko nettali bi lisaani yi xanaa leer na sëñ Touba moo ko ko nettali moom Cerno Yaxya li mu nettali mu ko fi mu jaar ak Cheikh na Cheikh Saad bu ak fi mu jaar ak Suwaadu mi jigéenu Cheikh na Cheikh Saad bu ñu ñuy ay cheikh ñoom ñaar nit ñi nañ def ndànk wëli bu nekk lam am kenn mënu ko ko xañ kenn mënu ko ko yàqal mën nga ca yàqoo nag taalibe yi nañ teey nañ teey nañ teey nañ teey kenn ku ne àndal ak ki nga ki nga bëgg waaye ormaalal ñi ci des bu dee am naar yonent bi du naar ku gëmul yonent bi di yéefar yonent bi du naar naar la wala lan lu waaye am foo ko amee na wax ci naar boobu ba jeex na lu waay da am foo ko jëlee ci rasulullaay rasulullaay du naar nekk naar gaaf la déet damay wax di est-ce que nekk naan gaaf la du gaaf kon nit ñi nañ tey nañ tey nañ tey am na koo xam ne kenn mënu ko yàqal mën nga ci yàqoon nag ko kon Moulay Abdou Aziz kàddu gaango jërëjëf Hadj Malick waaw nii dee ko développé de bii baax na dee ko développé fi nga wokk foofoo xese na wa salaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashaabihi wa taabiina lahum bi ihsaanin ila yawmi ddin bokk yi ñu ngi yëkkati kàddu wax dëgg yàlla dañ ko yëkkati rek ci ndigal waaye mënoon na ñàkk nag ndax ku nekk xam na biñ fi toogee léegi li ñu fi dégg sunu kilifa di sunu sang di Chérif Ibrahim wax ko kenn mënatu cee teg dara bi ñu paree itam sunu rakk di suñu mbokk daara Haj Malick jaar ci wax bi geex na tàkk mbaaxam rek nag moo tax maa ngi koy junju alxaaji bàcc bi ñuy ñëw ma naan ko ah, dañuy dem rek waaye am na leneen lu nu war a def waaye Chérif moom mbaaxam tax na boo ëgsee ci moom doo gaaw a dem mukk yàlla la yàlla fay li ngay liggéey ci diini bi ak tariqa bi yàlla gis na ko xam na ko maa ngi nuyu ñi fi teew ñépp ci ay kilifa ak dawaayir yi nuyu Mansour nuyu Oustaz Massil Haj Malick ak ñi fi nekk ñépp man nag ci minit bu gàtt ndax wax bi jeex na bi may wax moo tax ma tàmbali wax bismillahi arrahmani irrahim baada audu billahi min alsheytaani ma yëkkati alhamdulillahi rabbil alamin lan moo tax mooy shérif bi muy tàmbali dafa wax ni dafay waxtaane xaqiqatul muhammadiya daan nañ ko dégg nag mu am fu bari fu mu ci jaar ñun ñépp dégg nañ ko waaye li ma ci sant yàlla dafa mel ni xaj Maalik Jóob bi muy wax dafa doon bëgg liñ ci sama lanc ma sant ci yàlla te mooy ñun dañu joxoon ay kurus ni nañ ko téye ba mu dëgër am dokk yu ñu ci jox ni nañ koy def saa yu ñu xëyee kurus yiñ ñu jox fiñ ñu ko joxe mi ngi tudd tariqa ahmadiya mu tudd ahmadiya am lu mu junj mu tudd muhammadiya am lu mu junj mu tudd ibrahimiya am lu mu junj mu tudd xanafiya am lu mu junj ñun ñu téye kurus yi rek ñu naan xaqiqatul muhammadiya tey shérif ñëw di waxtaane xaqiqatul muhammadiya ndekete ñun kii ci am te muy sunu bunt muy sajjid alxaaji malik radiallahu taala anhu xamuñu woon mbir mi lu mu wundu dëgg-dëgg waaye bi shérif di wax samam xel a ngi naan ndekete góor gi waxoon nañu bu yàgg ni téye leen ndax inna alxaqiqata almuhammadiya manshau ji tariqati alfardiya waxoon nañ ñu bu yàgg ni mbir ma xamuñu lu mu wund de waaye loolee ngeen di dégg ñu koy tudde tariqatul ma xaqiqatul muhammadiya lii ñu leen jox ca mooy seen kurus yi ngeen téye te war koo téye ba mu dëgër sosuwaay ba mooy xaqiqatul muhammadiya xaw ma nag luy xaqiqatul muhammadiya kon ma ni man alhamdulilahi rabbil alamina gaa yi lu ñu ciy déggee mooy ndekete ñun sunu kurus yi ñu yor mu tudde ak tariqatul ahmadiya attijaniya ibrahimiya xanafiya manshaahu muhammadiya kon alhamdulilahi rabbil alamin loolu kat sëñ Babacar wax na ko nee na itam foofu la royaate tariqatul xaqi qad tasri saraira min ayni almasharibi fi xifdin wa taxsini kon ñun du ñu sant yàlla man bi ñuy wax maa ngi naan alhamdulillahi rabbil alamin bi ci des mooy def ñu fonkloo sayyiduna muhammad sërif wax na lu ma ñeenti yoon nañu nañu sàmm gëm gi ñu gëm sayyiduna muhammad ak roy wax na ko ay yu bari ma gis benn kilifa bu ñuy wax ibrahim ad-dasuqi dafa wax ni ku xëy ku ne ñett yi war na la nga wax ko bu njëkk ba mooy ku xëy ku ne war ngaa wax ni alhamdulillahi alladi hadaani walam yajal ni daalan maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni moo ma gindi bu ko neexoon ma réer ndax loo am jub nit am na lu ko ëpp fuuf bu dee ci yi ñuy xool ci àdduna te taxa jub dëgg la bu dee xam-xam am na ku lu ko ëpp li ci jubul bu dee alal am na ku la ko ëpp li ci jubul bu dee askan gi ñuy wax sax am na ku bokk ci askan wu baax te jubul kon war nga ne alhamdulillahi alladi hadaani walam yajalni dallan maa ngi sant yàlla mi ma gindi te bu ko neexoon ma moo tax dégg naa sa sëriñ ba si alxaaj abdul aziz radiyallahu taala anhu daan na def bu nekkee ci mbooloo ba nit ñépp tungoom ko ku ne naan ñaanal ma ñépp di dem ba mu génn loolu ci làmmiñu Mansour xaaj Mansour sëriñ Mansour bu xaaj abdul aziz laa ko dégg mu ne bu demee ba oto bi sori ba gësatul kenn mu ne alhamdulillahi alladi hadaani maa ngi sant sama borom bi nga xamante ni moo ma gindi tey ba ñuy mën a topp Abdou ndi ko tàllal loxo mu leen di ñaanal mu des beneen ci sopp gi ñu sopp sayyiduna muhammad yàlla jagleel ñu bokk ci ummatu muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa mu ne danga war a wax ni alhamdulillahi alladi jaalani min ummati sayyidina muhammadin rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam boo xëyee bala ngaa def dara yàlla baaxe nga bokk ci ummatul muhammadin war ngaa wax ni maa ngi sant yàlla mi ma boole ci xeetu sayyiduna muhammad mu des nag li ñuy wut te yàlla tegu ko ci loxol kenn moo ko tëjal boppam omar doon na wax sayyiduna muhammad na maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni joxuloo nga séddale kon nga jox fatima maa nga jox keneen waaye yàllaay séddaleel boppam kon war nga ne alhamdulillahi alladi lam yaj'al rizqi fi yadi ghayrihi maa ngi sant sama borom bi ma jël wërsëgam téyel ko moo tax nit ki na gëm yàlla te wékki boppam ci yàlla te génn nag sabablu ji waaye bi nga tëjee ni ñu wuti kilifa Seex Alxaaji Mansuur mi nga doon tudd dafa laaj ñaari ñaar laaj nit ñi daa laaj ñaari laaj nit ñi bu yeboo Xaaji Jóob ñu téye ci tariqa bi téye ci suñuy kilifa Alxaaji Mansuur yal na yàlla dolli ko leer daa laaj ñaari laaj nit ñi dafa laaj nit ñi ni leen coow li bari na wax ji bari na bu ku nekk nag ku nekk na jéem a naaw naaw lu nekk malaayika waaye naa leen laaj ñaari question question bu njëkk bi def ni fa kayfa irtiqaaul mar'i min gayri sullamin question bu njëkk bi mooy nan la nit mën a yéege te amul escalier bu ko yéege laaj man su rey laaj de fa kayfa irtiqaaul mar'i min gayri sullamin fan la nit mën a jaar ba yéeg te amul escalier bu ko yéegal kon wutil ku la yéege mu laajaat beneen ni wa kayfa bilaa xablin yurawwiika biiru naka nga mën a tax bëgg a naan ci ndox mi ci biir teen bi te wutoo buum ak baax boo mën a jukkee ci teen bi foo ko amee fu ngeen ko mus a gisee soo bëggee naan ci ndox mi ci teen bi dangay wuti buum wuti baax yoor ci teen bi ngir mën a naan boo ko deful doo naan mu ne nag ak lu coow li bari bari ku ko fi deful lu dul topp ci coow li waa ji ko def na xam ne jahilta bi amrillahi is kunta aasifan bu fekkente ni loolu ngay def maa ngi lay yëgal ni réere nga mbiru yàlla ndax yow teguwoo ci yoon wi dangaa fétal kon mbokk yi nañu wuti sunu kilifa yi nañu leen téye te ñi ñu yor mat nañu kilifa de te ku leen téye bu ëllëgee billaahi di nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam coow li jaru ko waaye nañu leen téye ku leen tëyee bu ëllëgee nga gis rasulullah alaaj Mansour teg na ca nan la nit mën a ci yàlla te amul dalil bu ko yóbbu ci yàlla subhanahu wa taala nan la nit di àgge ci yàlla te amul tegtal bu ko yóbbu ci yàlla sa mani Chérif ñun xamuñu xaqiqatul muhammadiya waaye daal nekkati kurus gi ñu yor daal fa mu jógee ca mooy xaqiqatul lu alhamdulillahi rabbil alamin ne gaa yi téye leen bu baax tey kar bu baax yeneen wax yi ñuy wax nag wax yàqu dong la waaye yal nañu yàlla musal ci yooyu salaamaaleykum moo tamit wax waaw wax bi miir la oustaz Mbay ka waxoon benn débat bu benn waxtaan bu amoon mu jël kàddu ga wax mbay oustaz Mbay ka ndeysaan waxtaan jox genn kilifa bu kilifa gi jëlee rek lu ma doon wax rek oustaz Mbay ka wax na ko Oustaz Mbaye ne maa ko tey ñëw damaa wax wax ja ba mu jeex mu ne nag la ma ci gën a metti mooy dama nelaw gënt di xeex ak moom ci biir tànt bi <laughs> ma ne ko yaa wax wax ji nag di nelaw du dégluwoo xeex ak yàlla dool dolli leeram ndeysaan waaye tabaarakallaahu man eh, Moulay Abdou Aziz dañuy bég ci say kaddu waaw yaa oustaz ji Bàcc dama xam ne boo waxee rek yóbbaale nga ko tabaarakallaahu kon ñu ngi lay sant di la gërëm ñun buñ sañoon foo toog ñu toog fa fu ñu toog nga toog ci suñ wet ndax eh, tabaarakallaahu ak yëg ni nga cofeel bi nga am ci xaaji Malick si Maodo ak kilifteef bi nga nangu ci ronam mu mu feddali li nga wax rek nañ am kilifa ku amul kilifa doo dem waaw kilifa doo dem gis nga yooyu ñuy wax ay waxu caaxaan la rek ku amul kilifa doo dem waaw mbubb yii ñuy sol sax du maam Adama ak Hawa amuñu mbubb ba ñuy nekk àjjana kon ku ne sëriñ dafa xaram su mel sa mbubb sànni képp ku gëm ne topp dafa xaram bidaa la su mel sa mbubb mi sànni mbubb bidaa la bidaa piir bi njëkk mooy sol mbubb billaahi wal kitaabi piir bi jiitu mooy sol mbubb massa nga teg ci dàll ñu ne déet nga teg ca mbaxana mu bëgg daal nag mbaxana mooy biddaa bi njëkk ak koll futteekul dumm noonu la yàlla bindee woon maam aadama te mu mosul gis awraay xawa xawa mosul gis awraay maam aadama ba yàlla dindee kiiraay bi lu mu leen wax fa tafiqa yaxsifa alayhima min waraqil janna wa asiya aadamu rabbahu jeex na kon lekk ceeb sax biddaa la am na wali yu dul sol mbubb te kenn du gis seen awra wallahi am na wali yu dul sol mbubb te kenn du gis seen awra am na foo yegg ci yàlla doo doota soxla mbubb xaqiqatul muhammadiya bu ànd ak yow doo mooy mbubb mi gën a rëy rida kiiraay bi dox sa diggante digganteeg nit ñi ba gi duñ gis sa awra mbubb moom moo gën a rëy dañ bàyyi caaxaan naan kafe sax bidaa la xëy ndékki bidaa la boolu añ bidaa la boolu reer bidaa la dugg oto bidaa la maa la ko wax yii yëpp ko ci def yaa ngi ci bidaa sangu bidaa la dem toilette bidaa la ah waaw yii amul àjjana sama maam Adama ci lii condition yooyu la njëkkoon dund gannaaw gi rek la ko yii gaa la ko indi mooy waa sa aadamu rabbahu te boo ko doon firi tey ci firim maanaa nii ci kaw rek mooy mooy li may wax toujours ngeen baal ma léegi-léeg nga dégg ko ne bismillahi rahmaani rahim maa ngi eh, arrahmaani ki yërëm fii ci àddina ñëpp arrahim ki xar yërmandeem ji ëllëg jagleel ko jullit ñi àllaaxira kon daal rahim du dox lu dul àllaaxira firi mu wérut la kon rahim du dox lu dul àllaaxira yàlla amul tur wu dul dox tur yëpp ay dox danga naan arrahmaani ki yërëm mbindeef yëpp fii ci àddina arrahimi ki yërëmaandeem gi sax dàkk ëllëg yowmal xiyam arrahmaan li tax nga ne kii yërëm ñépp mën na la yërëm tey suba du la yërëm ñañ roof ca kaso ba yërmande yàlla ngi ci ñëw mu ngi ci ñoom waaye fa mu nekkee ci ñoom baaxul ci ñoom ndax lañ def bañ dugal leen fa mooy cause bi waaye yërmande gu sax dàkk nag boo amee allaaxira rek la mooy dugg àjjana bilaa xisaabin wala iqaabin wala munaqasatin yal nañu ko yàlla boole defal waaw kon a ma sit la kàddu gaa ngoo ngeen baal ñaax ma ma ma kii Mansour Thiam billaahi maa ngi waat ci yàlla ne mosuma toog conférence bu neexee nii yàlla rek a tax ma ko waaw man li ma yëg li ma yëg tey waxuma ne mosuma ko yëg waaye géej naa ko yëg yàlla seede na ko te yàlla rek a tax may wax na waaw lillaahi rek a tax may wax Cheikhul Hadj Abdou Aziz mos na ñëw ci benn jotaay ñu tegal ko fa tey mu wàcc toog ci suuf ñu ne ci waaye ak toroxlu mu ne yàlla na fekk yàlla tax waaw na ko toog ci suuf ñu bëgg rek ñu ne dafa woyof fa loolu dong nga ca am bu yàlla taxee nag man waadaa man tawaadaa lillaahi rafaahu llah kon nag yàlla ñu yàlla defal sutura xaaju ma sell kàddu gàng al imtisaalu awaamir wal ijtinaab nawaahi la yadurraani jëfe ndigal ak bàyyi tere ñaar yooyu du faral di lore waaye yëg ak yéene ak kàddu moo nu fi tax toog ndax vingt quatre heures ba léegi noo ngi ci ay programme gàmm sëriñ Aïssa Touré jóge fa jaar ngay mexe yendu fa ci conférence bi ñu doon def et doon am yéene jiitu ci chérif comme niñ ko daan defe ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziar lii mu seede ci programme bi ci moom la ne ndax euh, walla fii dañuy wax ni benn pomme de terre bu nëb mën na yàq saaku pomme de terre waaye boo ko xoolee ci côté ndeyjoor yi kenn ku baax te am yéene ñépp baax yàlla mën na koo dimbali ba ñépp baax te loolu mooy yéeneen soo gisee nit ñi xër ci moom dafay partager yiw te day sóoraale njaboot xam nga bari na ci kilifa yoo xam ni du ñu la yëg seen bopp rek du ñu la sóoraale yëg ci dara tey jii bu wóoroon ni bu baax bi daanoo moom du ca dee bu yemoo baax bi daanoo bu réew mi doon tàkk mu yëkkati boppam ni ndax agsi na sama kër tàkk-tàkk la ñu ne ko déedéet mu tëddaat kooku nag nit ñi dañ koy ragal nit ñi dañ koy ragal walla di ma jama jóob moo daan wax ni ku la mën a dimbali te dimbalewu la nee na boo ko réeree moo la wàcc ku la ëpp doole te boo ko tooñee du la muñal boo ko réeree moo la wàcc nit ñi noonu rek la kon tabaarakallaahu ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wàcc di la di dol di dollee nangu sa cër di nuyu kilifa yi di nuyu soxna Astou suñu sunu sëriñ dégg naa ko sax démb kel ma ne ko ci sonn na de moom ak ñi mu àndal te bokk ak ñoom xol bokk ak ñoom pas pas muy Fatma ak Fatou asku li séré wax ci moom dëgg la waaye nag ku baax la wax dëgg yàlla ndax li mu am ci sérif yombul ku ko am kon nag ñu ngi koy nuyu di nuyu kilifa yi El Hadj Malick nii ak waxtaan waxtaana mu am solo lu mu def ak leeral gi ndax wax wam waxal rek lu jàpp ndi xam nga yonent bi dañ ko jox jawaamiul kalim mooy wax ji dey gàtt ba pare tink lu bari sayyidatuna Fatima dafa ñëw ni ko sama tante Aïcha daf maa xas mu ni ko lu mu la xase mu ne ko daf ma wax ni sa yaay bi sa pàppay jot ci moom sa yaay màggat la yonent bi ne ko fayul mu ne ko lu may fayoo mu ne ko nee ko yow bi ngay jot ci sama papa sama papa màgget la xam nga bar ca bar la ci tontu wax na ko lii mu tontu ko lii loolu tabaarakallaahu mooy li li wax ni nañu ko dagg def ko benn séquence glissé ko ci réseaux sociaux yi donte li mu doon tontu ñu bari tontu nañ ci waaye li ko waral yépp mooy li wolof ni wax ni wujju jongama gémmiñam du selaw kuy wujj ak jongama dootoo nopp du am jàmm moo indi moo indi lépp xam nga mboolem l'islam bi ngerum sida imaamu Malik moo leen dérangé ndax moo ci gën a sell ci biir ngeru imaam Malik ak yeneen ngir yi nga xam ne tarixa ñor na leen tarixa cheikh moo leen dérangé ndax gën sell kon cheikh day jongama joo xam ni wujjeeg moom yombut amul moom kenn xamul ko rek waaye chérif dafay jaabante ci njaari niveau yi dina wax ak boroom xam-xam yi wax ak ñi nekk ci niwo yi gën a suuf kenn ku nekk jariñu ci te loolu mooy xikma maa ngi jéggalu ci kat guddal gi xalaatoon naan sax duma àgg fii ci wax ndax ah, mënuma ko te yéen ñi toog it mënu leen ko damay faral di wax ni boo dee waxtaan ba yàgg nga séen ñuy teggale ay chaise ca gannaaw jël ci nopp walla ngay waxtaan ba yàgg nga gis ku fuddutu óbbali dangay jël ci nopp walla ngay waxtaan ba yàgg nga gis ku daal di tàll ñaret daal di tëmb ne na jël ci nopp walla ngay waxtaan ba yàgg gis ku daal ne fëri xët doom ji jël ci nopp yooyu yëpp ay signe sonn la yoo xam ni waaye tabaarakallaahu jotaayam nag ah, moom de ku demit bàyyi fi njariñ ku demit bàyyi fi njariñ parce que li ko ci yàlla may may ko kenn xanaa di ko ñaanal yàlla yàggal ko fi te lii muy jàmbat nii man de su ma sañoon shérif shérif objet bi nga xam ne boo ko ñàkkee doo xam foo koy amee doo ko tam doo ko doo ko doo ko foye dem bay daanu di xëm ca buntu sangukaay baax ca mbalaan wasifa ma loolu moom gënaluñu ci yow léegi nag li ñu koy may rek mooy sakkanal sakkanal Serigne Cheikh Tidiane si nee na fii laa nekk kuy day dayira bu ne woo ma ma conférence leen dayra bu ne woo ma pour ma gam gammul leen ma dem te ba boo ma pesé du ma mat du ma mat vingt kilo ma woo Serigne Abdou ne ko def leen ay fédération bu waxtu jotee ma dem Ndar wax ak ñëpp bu waxtu jotee ma dem Kaolack wax ak ñëpp parce que bu fekkee dayra bu nekk daf lay soxla woor laa war laa woo di nga dem bu ñu la pesé doo mat vingt kilos waaye bu ñu defee fédération ñoom ñëpp di ko defandoo benn bis ñoom ñëpp ñu daje mooy gën a yomb méthode boobu la mujjoon jël loolu daf ko defal pour sakkanal boppam. te nee na kuy def lu xew buñ la ko yëgalee nga dem léegi rek ngay laajte luy faj ginnaaw gu métti waaw na ngi kon nag pour sakkanal la rek te tamit sama benn waaye ne man dama daan firi gàmm waaye bàyyi naa parce que damay firi ba sonn xaw nga noo dajji biig dong laa ciy amee xaw nga noo dajji biig nag jarul ba <laughs> kese nee na da daan firi gàmm mais bàyyi na sama benn xarit bu daan firi nee na bàyyi na ndax nee na day firi ba sonn xaw nga noo dajj bi doo nga la ciy am waaw nga nag loolu tamit yoru ko ndax loolu munta munta supp munta jënd soow munta jënd day garab waaw mu noonu nag kon ne la yàlla barkeel maa ngi nag eh, gàttal waaye nag ah mënoon naa gën a gàttal de waaye nag pexe amul waaw jox nañ ma nag xaalis biig damay waxtaan gàmmu sëñ Issa cérémonie bi maa koy waxtaan def na waxtaan naa fa plus de quarante minutes man leen ne man li ma jaaxal man su may waxtaan du ngeen ma jox ñaar rek nag la benn ngeen defee ni yor naa wala li may wax amul solo dinaa leen leeral nag bu ñu defee ni damaa bëggul xaalis ma leeral leen boobu mën naa leen ko leeral mooy bëgg naa ko ndax am na solo wala amul solo nag li may wax kooku yéen a koy àtte benn waaye ne ma xam nga lan la booy waxtaan jàpp nañ ne bu ñu jógee di ñëw di la sarax am lu nu rëcc ci li ngay wax ma ne ko ah bu dee naxet neex de mbaa bu neexet di nax <laughs> am mën na doon waaye fekk na nag tabaarakallaahu duñu ko sóoraale sax nag waaw waaw duñu ko sax sóoraale dëgg yàlla alis neex na lool nag waaye duñu ko sóoraale ah. kon ñu ngi sant bu baax di jéggalu waaw sonn nañu guddee mu mooy waxtaan waxtaan yu doy waar ñu ngi ku baax lu nekk nag mu koy def ci ñun lépp nag ci barke Cheikh Ibrahima Aïdara Tidiane yi si mu ngi ànd ak maam Ousmane si nii Chérif nii kii liggéey moom a boole moom. ma dem liggéeyal ko ba mu jeex sëñ Habib si bu sëñ Pape sëñ Bay Mansour téye sama loxo téye ci loxoom ne boole naa la ak kii ni ngeen ko téye te àdduna bu mu yàgg ba ngeen ba waxtu conférence bi jotatee wala ko mu sonorisé sëñ Habib moo def loolu moom it ñu koy sant bu baax moom sëñ Habib si ko ñaanal yàlla yàlla guddal fanam may ko wér sama wayjur nag dafa wax léegi wax bu am solo muy li mu wax ci métier ni démb tafsir gay Chérif maa ngi koy sant bu baax moom it démb bi mu gàmmoo ba noppi dafa ñëw may ma xaalis bari ndax bëgg ndax barke gi dafa ma woo ma kaay mu ñëw mu ne ma yow danga am maam bu am ay walla ma ne ko sama maam Seydi Jamil moo ko tuddee Thiam Darapo Ndakaaru moo fi njëkk am rajo moo góor gi daamloo suma jumut jumul ko muy liggéey liggéey boobu sama bàyyi wuutu ko ci moom noppal ko moom man ma wuutu ko ci moom noppal ko ma ne ko yow ëppoo fi xam-xam dàqoo fi wax barke la topp barke bi la topp moo ma topp daa ko ma fi animé nag ëpp ma fi matériel barke la du mën-mën du dara xam-xam du dara barke la lu waaye di sàkku sàkkul barke mooy lan métier mu ne mën na laata ba mu des sa métier bàyyi ni ko sama bàyyi waxee ndax waaja bàyyam daan sàcc mu ñëw ci yonent ni ne ko man de damaa bëgg métier ban métier laay liggéey mu na ko xoolal métier bi sa daan liggéey nga liggéey fekk bàyyam sàcc la woon du ah du du déglu ngeen dégg ngeen ñuy nettal loolu saa su ne foofu nag laata yem ndax man du ma borom xam-xam saa si yaa ngi nii fa laa yem li des xam ngeen ko waaye tafsir nee na bu sañoon fu muy gàmmoo ci àdduna maa koy sonorisé wallaay. moom moom dafa baax sama waay la loolu la yàlla dogal bëgguma woon sax taxaw jël jël micro bi di wax waaye dama ni faa ma wax yàlla dogal na ni nekkuma woon tey nekkuma woon waaye après ñëwaat naa ndax jëmm ji waaw ndax kii Chérif maa lay seedeel Oustaz Sidi Mbaye koy sant bu baax soo si di mbay maa koy sant bu baax du ma ci sori ndax yow sama diggante moom lépp nga xam dal na yàlla sàmm ko te ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant papa laay nag moom mi nga li ne ci ñun yëpp moom moo ko def ci ñun li ne ci ñun yëpp ak wér ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku toog ci tànt bi daal maa ngi lay sant ñépp nag bàyyi ma kenn ma fi nekk di tudd ay tur ndax guddi na waaye sama nijaay jee moom it maa koy sant yow moom sama diggante moom xam nga Chérif ci mbaaxam taal na otom dem ba atelier toog fa ñaanal ko Chérif mii kon kii bëgg na ma sànq dama ko woo walla naa bàyyi foofu sinon du baax waaye daal kontaan naa daal Chérif na yëg ni bëgg nañu li may wax nag man la man la concerné man ku ma bëgg bëggale maag Chérif ku may bañ bañ maag Chérif ku bëgg Chérif bëgg naa la ku bañ Chérif bañ naa la koo mën a doon man la concerné lu nekk nag shérif nii mën na ma ko def loo ma def ko jaral na ma loo min xalaat ci àdduna jaral na ma ko su ma déggoon fii nit di wax ci moom nag ko sudul noonu dinaa pare rey mbaa ma rey ma de sama pas-pas ci moom moo toll foofu damaa toog ak alaaji saaxo dama ko seeti toog di waxtaan ak moom ci yow ma ne ko ah bàyyi laay de chérif de ku nekk ak moom te sa pas-pas dëgërul ci moom dëgg-dëgg bu yàggee nga roccee ko ndax yu bari yuy dégg te lépp dara du ci dëgg ñu xam ni dara du ci dëgg xamuñu moom mooy kan de waaye xam nañ mooy kan ku xamul xamul nag ku yëgul yëgul waykat bi woy na ko musicien yooyu ku xamul xamul ku yëgul yëgul waaye ñun xam nañu yëg nañu it kon Chérif yàlla sàmm la aar la guddal sa may la buñ toogoon fii di wax ci yow duñ fi jug. moom mi kon bàyyi naa damay wax ndax dëppoo wallaay benn la ah, bàyyi naa ko dañuy waxtaan man nag moom ci jëmm ji yàlla xam na ko imaam Samb kontaan naa Oustaz Abdou Aziz Mbaye nag bàyyi la ci man ndax sama soxna si imaam Abdou Aziz Mbaye bàyyam la waaye imaam Samb mii dégg naa ci moom moom sama xarit la loolu la yàlla dogal sama xarit la lool te yow yaa tax ma xamanteeg moom waaye muy jëflanteeg ñun ci wàllu ñaan ak ci wàllu baatin lu bari bari moom ak Oustaz Sidi Mbaye man kenn sangatuma ñoom ñaar léegi léegi ñoo may sang na leer ma ni man de dematuma ci kenn naan ko sang ma ñoom ñaar laay dem tëjoog ñoom ne ko naa tooy saabu gi nga yor jonjoma ci ñu ngi nii duma duñ ma bàyyi ma fen ñu ngi nii shérif mii sax sangatuma donte ne nag sang na ma waaye sangatuma léegi daal maa ngi ci nii waaw Chérif nag moom na féetewoo wàllu mbii rek waaw nay ñoddi rek waaye wàllum tooy tooy bi moom na ko bàyyeeg nii Chérif maa lay sant bu baax di sant sama yaay booy nag yaay karimatu jaar ko ñaanal yàlla moom yàlla na yàlla guddal fanam xam naa moo fi na lay nekk ñëpp laay lim waaye alaaj Malick Diop mii Chérif bi ma ko yóbbulee carte bi la tàmbalee def waxtaan wi moom ma ne ko Malick posal sinon boo ñëwee tànt ba doo wax donte ne li nekk ci dënn bi bu fi nekkoon ren ba déwén di ko wax du jeex waaye xaj Malick yàlla yàlla sàmm la yàlla aar la yàlla guddal safan fan may la wér sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp tonton Ousmane sant naa ñëpp ñi tagg yonent bi ñëpp sant naa leen maa ngi sant soxna Asiyatu si Chérif at mu jot mu ñëw ci conférence daaw laa ko tàmbalee yóbbul carte mais yi passé yëpp ñëw la te musuma ko yóbbul carte yàlla xam na ko mu ngi nii duma bàyyi ma fen daaw laa ko tàmbalee yóbbul carte ak ren kon soxnaa si yow yàlla na yàlla sa fan may la wér di sant Mansour Seck mi nga xam ni maay moom mooy man Mansour moom mooy Mansour rek waaye di sant nag sama soxna nit doo bàyyi ba mu dee nga koy gërëm danga koy gërëm ci bi muy dund am déet dina ko wax sëriñ ñu ngi nuyu ñi fi toog ñépp di wax yal yàlla def jàmm ci ñoom di wax loo xam ni dañu ko bëggoona a waaye doo yaakaar nit ba pare gàntu ko dama waxoon tey su ma ñëwee du ma wax ndax dama ànd ak sama sëriñ te taalibe su mokkalul warul bari tànk ci kanamu sëriñam maam Ousmane mi ma àndal ñu di ko wooye maam usmaan si mbër maam mbër moo jur baayam Baye Alioune si Baye Alioune si ak Alaaji Tijaan si mbër ñu bokk ndey ak baay ñu xale yi dañuy wax ni su ñaar bokkee baay wala ñaar bokk ndey su ngeen di nettali wax leen ni ñoo bokk ndey ak baay ndax mag ñi fi nekkoon bu njëkk noonu lañ doon séyante di nga dugg ci kër doo xam kuy aawo doo xam kuy ñaareel waaye comme dafa guddi te shérif nee na ñaan ñaan bi nag dana xaw a jafe ci man ndax dama waxoon ni tey su ma ñëwee damay wax ci xorma ndax dama gis ci moom nu muy doxale xorma moom ak digganteeg ñi mu nekkal te xorma dama gis ci suma bàyyi Abdul Aziz si radiallahu taala anhu bés ñuy laajte ma laaj ko ma ne ko papa daal gis naa ni da am force ci xorma mun ma yaa ko gis ma ne ko mun ma noo ko gisee ma ne ko ni ngay doxale bi ci gën feeñ nag mooy dama toog ak yow bés ci Gueule boobu heure bii may wax nii ci ci rajo bi jot na min wee bi une heure kuñ doon wax Mbaye Gassama walla muy euh, góor gu santoon mbay laaj mbay ñëw fekk ma ma toog sama papa Abdou tëdd ci lal bi ndaw bi ci digg kër gi ma toog ci wetam ñuy waxtaan imaam ñëw ne ma waxal sa papa Abdou sa papa Habib mu ngi ci buntu kër gi mu ne ma lu mu wax ma ne ko nee na sam papa mu ngi ci buntu kër gi mu ne ma suñu ubbee buntu kër gi balaa muy dugg ci kër gi yëkkat may ma loxo ma jóg toog ma may ko loxo mu jóg toog ma féete ko ginnaaw ndax lal bu ndaw la 0,90 mu ne ma soo ko séenee bu ma jegee may ma loxo ma jóg taxaw bi sama papa Habib ñëwee bay bëgg a yegsi ci moom ma dugal sama ñaari loxo yëkkati sama papa Habib jàppale ma ñu taxaw téyente ñoom ñaar ay minutes ñu toogaat bi may bëgg dem sori tuuti sama papa Habib ni may ay eh, sóor toogal sama du ñu wax la ñu wax te suñu bañoon ma dégg ko du ma wax ma toog waaye xamoon na ni nag su ma ko déggee du ma ko nettali bi mu demee ñu gunge ko mu toogaat mu ne moo tëjal bunt bi mu tëj bunt bi ñëw fekk mu sóonuwaat ci ngeganaay bi ma ne ko man de tey da nga def lu ma jaaxal lool mu ma lan la ma ne ko ki fi ñëw léegi di sam pap Habib si mu ma waaw xam naa ne xam nga ko parce que gis naa ci sa digganteeg moom benn complicité ma ne ko waaw sama papa la te moom moo ma ni tant maa ngi nekk sa papa bu ragal ndax fi nga bokk amul kuy ragal ragal existé wul ci ñoom sa turandoo moo daan wax lan mooy ragal ma ne ko waaw mu ne ma kooku nu mu tudd ma ne ko sama pap Habib Sy la tudd mu ne ma ki ma doon nuyu léegi ma ne waaw ki ma doon waxal léegi mu ne waaw mu ne ma yow yaa gis Habib Sy waaye man sama ki ma doon waxal Sidi Hadj Malick la damay ñëw léegi ci fii Mouhamad euh, Hadj Malick doon waxe sànq ma teg ci beneen question ma ne ko dama gis toujours bu ñu la wooyee ci mbooloo sooy ñaan nga ni yàlla ñii di ma ñaan loo man mii ñuy ñaan loo ndoonte la liñ may ñaan loo martaba bi nekkul ci man waaye rusal ñi may ñaan loo ba liñ may ñaan loo bu ma ko ñaanee mu am loolu mooy li Habib mooy li Xas Malik wax léegi sama xarit bi wax na ko léegi waaye dama wax ni ci sama xam-xam bu tuuti parce que man fu ma toogee ak borom xam-xam du ma wax ci xam-xam damay wax ci histoire parce que histoire moo mag l'islam histoire moo doon am l'islam di alxuraan di ñëw mais dama buggoon nag man su ma fekkati ñu am xam-xam di wax ci xaalallahu wala xaala rasulullahi man damay wax ci xam-xam parce que ñi ma àndaloon di ànd ak ñoom guddeeg bëccëg ñooñu mën nañ ma jur donc lañu xamoon xawma ko waaye nag wax nettali nañ ma nag lu nekkul ci téere yi loolu moo tax may am féetewoo di wax histoire Chérif wax na léegi benn wax ci jagsaaw Saalum bi ñu koy gor falaa fanaan buleel la jóge Kaolack la ñu fanaan jaar mbir kilaan kër bàjjen na fi dem buleel jóge fa dem Malem Odar fanaane jag saaw Saalum góor gu ñuy wax Cheikh Ndiaye maa bey bokkoon na ci Alaaji Kebe bokkoon na ci mooy ba bàyyi Maxtaar Kebe moo daan bindal sëñ Abdu boobu Maxtaar Kebe jàngi na ci guddi waa aafe def fa ñaari néeg ñu wus ba ba pare reer ba pare sama papa Abdou ne ma yow yaak umu de sama néeg ngeen di fanaan umu boobu mooy umu Xadi Njaay sama taan Xadi Njaay moo ko jur moo ngi foo ak fat si ñu fanaan foofu loolu mu wax noonu keroog defe naa ne fekk naa ko borom mburu ma am na sax ku nettali beneen am na ku nettali ni Sëriñ Fàllu dafa yoroon mburu ko am ñëw ne ko ñu séddale mburu bi ba mu jeex mu ñëw dese benn mburu mu ñëw na ko suma waa kër ndekkee ñu mu ne ko yóbbul kilo bi ndekki mu yóbbu kilo bi taalibe Serigne Fàllu radiallahu taala anhu jóge Ndaxaar def ci oto oto mburu yóbbu ko bi mu ñëwee nag chauffeur ba ko doon yóbbu jaar këram wàcc fa benn mburu bi mu ñëwee jox ko sëriñ bi sëriñ bi xool mburu yi na ko mburu yi manqué na benn loolu mooy ci cadre bi mu xam Haj Malick doon waxtaane sànq ki nga xam ni bu la yónnee bi ngay jóge ci moom di dem ba ba ngay yegg xam na ko romb parce que loolu góor gi def nañu ko yónni nañu ñu ñëw dem ngeen ba ñëw ñu ne waaw ñu ne lu tax ngeen jaar kër Chérif ah Pape jaar ñu kër Chérif mu ne ah reer bi ngeen reer fu ngeen ko reere loolu ci pratique mooy li ma doon wax sànq ma ni daal su ma ñëwee man ci histoire laay wax parce que shérif ci xaala laahu xaala rasulullahi ci barke yonent Yàlla Muhammad maamam ci lay waxtaan Haj Malik nag dafay waxtaan ci li mu jàng ak ci li mu bokk ak li mu bëgg mais soo indee histoire boole ko ci nag day ànd parce que li ñu tàddeel fii ñun mooy jàngal lu ñu xale yi histoire xam nga sama papa Abdul mu ñu daan wax kaay leen ñu ñëw ñu toog mu teg reer ñu reer mu defal ñu boisson defal ñu lépp waaw papa loo ñuy doyee mu ne dama bëgg yéen ñii ngeen xam yéen yéenay kan ku xamul yaay kan doo xam foo jóge doo xam foo jëm kon daal maa ngi baalu ndax Chérif dafa bëggoon dégg lu tuuti lu mel noonu moo tax ma dañuy wax ni xorom bu ñuy jënd kenn du ko sóoraale waaye bu ñu toggee nag bu ñu bëggee ñu lekk ko il faut ñu def ko ci parce que maam si haj Malick ñi mu fi bàyyi ñooñu il faut ñuy waxtaanee ci ñooñu parce que dafa waxoon ni yéen a ngi wax Malick waaye xaal leen ba Malick màggale ndax kenn ku ne li nga li nga liggéey ci àddina bu sa njaboot ñëwee lañ koy xam yéen a fi wax léegi maam an Ahmad Tidiane Chérif radiyallahu taala kuy maamam maam si kuy maamam yun ci Yàlla Muhammad kon daal bu sëriñ toogee taalibe du wax xaala laaw xaala rasulullah maa ngi gërëm ñëpp di gërëm shérif di wax nag man bokk naa ci ñi nga xam ne bëgg naa shérif yegg fi mu bëgg yegg man bëgg naa loolu te it maa ngi koy ñaan tous les jours xam naa ni it nag mag ñi ñaanal nañ ma xëy na nag aw ma ñaan waaye dinaa wékk sama ñaan ci ñoom dégg naa la léegi nga wax lu mel noonu damay wax toujours yàlla maa ngi lay ñaan ci barki yonent yàlla Muhammad ñaan bi ma lay ñaan yàlla man mi la koy ñaan du ma dara waaye kii ma jaar la sama ñaan ci moom nag moom moo ne yow yaa ne moom dara la mooy yontu yàlla Muhammad ñaan googu nag dama koo jaarale ci si nga xam ni nag mooy sama wasila Cheikh Abdoul Aziz Sy Dabakh Malick te it xam naa ne dina yegg ñaan boobu nag maa ngi koy ñaanal sama rakk ji sama sëriñ bi sama xarit bi suma lépp wax naa ko benn bis ci sama kër mu dindi téeméeri junni may ma ko ma ne ko shérif man mosuma woon xam ni may li ñu ku ñu may nii la neexee xaw ma mosu xaw ma woon ni buñ la mayee nii lay neexee ci xol sëriñ Bay si Abdou jëw ma mu ne dégg naa li nga wax ci sa conference ci kanamu shérif ma ne ko mbaalu musiba mu ne ma déedéet da nga wax loo xam ne ñun sax mënuñu ko wax parce que da nga ni shérif lii nga ma may maa ngi door a xam ndax la naka la mbay neexee waaye li ma mus am ci àddina it maa ngi ko bokk sama bokk yi musuma ci lekk dara bàyyi leen kii baayam mi ngi ma jàngal ndax dari 1961 baayam baay la tiisaan si moo ko fi indi ñu jóge fa jox ñu keneen jox ñu keneen mu yóbbu ñu jag saaw xaw ñu faray ba sama baay Abdou may waa jag saaw faas ñu bari dañuy wax jag saaw maam Abdou mayul Sidi Ahmed ba jag saaw waa faas la ko may ndax bàjje bàyyi bàyyi tijaan si mbër moo doon bërëbu këru eh, soxna Ayda Diop soxna Ayda Diop ak Nafi Diop ak Makhtar Diop ak Moustapha Diop ñu bokk ndey ak baay bàjjen Nafi si moom lañu ñu mayoon maam Yusufa Diop maam Youssoupha Diop moom na maam si Hadj Malick dénkoon gérance su tooli jaksaar te it mënoon nañ ko waxee noonu nag ba mu yaatoo yaatu waaye nag comme guddi na maa ngi ñaan yàlla lépp lu ñu fi ñaan yàlla yàlla nangu ko tout à fait tout sama maam bi jur ki jur sama baay bi maam si Hadj Malick waree dal alxuraan moo ko jëli gaay yóbbu ko jolof te boobu tukki yombul de koo ni kaay dem mu ne bu ma génnee ñu rey ma ndax boobu soo génnee yor fas ñu nangu ko jaay ko dunde ko soo génnee yor fetal ñu nangu ko jaay ko dunde ko donc da mën a war fas yu am fetal ba pare am fit moo tax ku ñu tuddee maam si aj Malick rek ma d'accord ci sama papa Abdou dama ko ne woon doom bu ma am dama koy tuddee maam Abdou ma am doom bu jigéen mu jóge Maroc ñëw ne ma ah musiba am na de ma ne ko lu xew moom waxaguma sama jabar ba si mu ne ma ah sa am na bu jigéen de waaye garaawul dinaa ko tuddee Abdou Aziz balaa veille à trois heures du matin mu ne ma demal ba suba ma ñëw tudd ko ci ëllëg sa ma ne alaaj Bachir doo tudd mu ne ma sama njaay Abdou nee na yow lay xaar mu nga toog ci saar bi di la xaar ba dem jëli ko keroog li ñu ubbi masjidu rasul dafa génn sama kër dem jëm liberté cinq mu tudde xale bi Aziza moom sama papa Abdou ëf ma ne noo ko tuddee mu comme man nag sama ñaan du woon kooku yàlla indiwaat sama ñaan nag maam du ma nag mu ne ma léegi nag fin na maay ngénte nag ma ne ko waaw ba jour tudd bi mu waroon tudd si feebar yónni Bachir Bachir ñëw ma ne ko kuñ koy tuddee mu ne ma xaaral nee na buñ ko wax kenn tànk ñu ko euh, lu ma buggoon wax tey ci maam kër kër maam Seydi Malick c'est dommage que temps bi may ñëw ñi ñëw di tudd suma baay bi ma jur ne ma yow ki ñuy tudde sa doom pour la première fois xaw ma ko ma ne ko man mi ko man mi ko jur sa xaw ma ko Alaaji Bachir na ko moom mi ko jur it xamu ko góor gi wax ca wax ju bari ndax tàng jolof-jolof la woon sànq bi ngay wax jolof-jolof dama doon bañ a wax laa ndax maa ngi juddoo Ndakaaru bu ma nee jolof-jolof laa mais dama déraciné bi mu góor gi waxee ba pare alaaj Bachir na ko pare nga mu ne ko waaw mu ne indi leen xale bi mu ne ko Bachir tuddal mu tudd ne Abdul Aziz nee na tudd na ko maam Sidil Hadj Malick si ibnu maam Ousmane waaw yow danga bëgg ñu tuddee sa doom mbote mi mbote mi mbote mi nga bëgg ñu tuddee ko ko ñu wax la ne sa doom ji fan nañ ko tuddee bàyyi mbote mi seetlu nga loolu bu ñuy wax Abdul Aziz Alaaji Malik a tax bu Alaaji Malik existé woon Abdul Aziz di existé xëy na dina existé ci beneen femme mais du nekk Abdul Aziz maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla Chérif daf lay wax loo toujours ba pare taxaw ci sa ginnaaw nag li nga war a wax mu di la ko dégg di ko wax te kenn du ko dégg dama lay jox benn paragraphe rek bu ndaw dafa am benn jigéen bu indi doomam ci néeg maam Abdoul Aziz ne ko xale bi man maay ndeyam ñaanal nañ ko maag baayam ñu indi ko nag ci yow mi nga xam ne yaay sunu sëriñ pour nga ñaanal ko gërëm nañ ko sant nañ ko bi muy wax loolu góor gi boobu góor gi dafa tëdd ci lal bi mais bi mu waxee loolu góor gi góor gi dafa di bëreet toog mu ne ko gërëm nañu ko sant nañ ko comme yaay sunu wasila nag ñu indi nga ñaanal ko góor gi wàcc ci lal bi bu toogoon toog ci suuf talal loxoom ñaari xale ñaari loxoom xale bi mu ne ko góor gi déggoo li ma la wax dama laa indil kii pour nga ñaanal ko mu ne ko na ma ñaanal ba pare ndax ko am sa ñaari waa ñaari waajur loo ñaan yàlla nangu ko comme moom nag dafa bëgg chez Baye Abdoul Aziz te ànd nañu ak Baye Abdoul Aziz 40 ans am na luñ ci xam lu njabootam sax xamul ndax boo demee ci lël ba am na lu sel bi xam te bàyyi julli yi xamuñu ko ñu jàng fatiha salaatul fatihi waxuma ko de maam Seydi Hadji Malick moo ko wax ñu jàng ayatul kursi teg ci xul wallahu ahad falaxi ak naasi dañu yéene ñun ñëpp nag shérif yàlla yàlla may ko mu yeggale fu mu bëgg a yegg képp ku fi ñëw yàlla yàlla faj sa aajo ci barke yonent Yàlla Muhammad shérif ima shérif Aydara maa ngi lay ñaan shérif Ibrahim Abdoul Aziz Aydara du noonu la de Chérif Ibrahim Abdoul Aziz Aydara dama la bëgg a wax ni la yàlla gën ñëpp waaye ku dul yàlla yonent bi la li ñuy ñaan nañ ko teg ci ñu ngi koy teg ci sunu wasila yi ñu teg ko ci ñu ngi koy teg ci loxo shérif rek mu gën a gàtt ndax sa papa Abdou sa maam Abdou dafa doon bëgg ñaan ñu jox ko xaalis bu bari muy bëgg ñaan góor gi ñaanal góor gi ñaanal mu tàllal loxo dem bay bëgg ñaan ni ñaanatuma sax yàlla xam na li may bëgg a wax. am na lu am na lu Hajj Malick wax léegi dafa xot ci baatu mbubbam ci tàngaay waaye looy def nii. mu ne man sama yoon dafa nekk ci tàngaay ba ma naan tàng na bu ma yàlla déggee may wax loolu lan la may wax dañuy ñaan ndax bu ñu ñaan du baax ci man du baax ci Chérif yàlla yàlla yokk sutura yi yàlla yàlla barkeel dafa am lu ko dal te loolu il faut mu dal la sama am si aj maali bu mu toogee at dara dalu ko dafa woo góor gu ñuy wax Souleymane Ndiaye ci kër aale ci kër gay moo fi waxoon ni bu téere si ajmaali yëpp lakkee mu bindaat ko toog naa moom ni ma toogee kii moo ma nettali loolu mu ne sa maama woo ma dog jox ma dog boo xam ni bu ma ko ñaanee du baax mu dem ba génn xoolaat bind bi ñëw na ko góor gi mu ne ko demal suley demal nga ñaanal ma ko bu di ko ñaan te ëllëg sa ñu woo ko ne ko tuyawa na ngay lakk mu ñëw fekk ma am maali ajmaali jonkan fële yor téereem mu seen mu seen ko suley di ñëw mu ne ko suley jërëjëf su la ñépp bëggee ñépp sopp la ngay defal ñépp il faut nga am dog dog mooy épreuve ci nitu yàlla fakasalu daanu sax dog la jabar joo xam ne loo ko wax mun la camit dog la mag moo fi gis ñu topp ci ginnaaw am na koo xam ne bu guddee dina ko tere nelaw waaye nag binduñu ko ci kayit yi da ngay la alaaj Bachir waxoon docteur ba mu ne moo laajal ma alaaj Bachir ñaata at la am ñu bindal ko ordonnance comme nanguwul fanaan hôpital mu ne mu ma ne nee na ñaata at nga am mu ne ma waaye xam nga bi mu wax loolu ñaata xam nga lu ci teg mu ne mu yàgg fii ci wéré di moo gën a wér dem chérif mii bu fekkee def fee nar a am téeméeri at téeméeri di yàlla na ko fi def moo gën mu wér def ndax li muy def kat bu demee kenn leen dootu ko def yàlla yàlla may la xaalis bu baree bare ndax ku mën a may xaalis ka yàlla yàlla may la wér yàlla may la njaboot gu barkeel ci barke yonent yàlla Muhammad maa ngi Mansour nag jëw nañ la waaye liñ la jëwee nag yaa ngi ci yàlla yegg te nga fekke ko te tal ko bu mu nekk beneen ak beneen ak beneen auzu billahi min wa rasulihi amiin yaa rabbi alaaji Maalik Jóob yàlla